mbokku internet yi maa ngi leen di nuyu te di rafetlu bu baax a baax ni ngeen di àndee saa su ne ak programme mu 5 TV ma ñëwaat ak yéen ci décortique bi ñu leen di defal seen série Karma tey mu yem ak épisode 28 bi ñu door ko ak séquence bu njëkk bi ah, ñu gis ni Sali lépp lu laale ak Abdou Kébé wala luy taqe ci Abdou Kébé bëggatu koo gis bëggatu koo dégg ah, ba tax nag ah, li nga xam ni moom la Ami ñëw di ko ñaan ndimbal ngir mu témoigner contre Abou xalaatu koo def ndax xam na ni Virginie bi nga xam ni ñàkk na bakkanam moom moo si tegu bis bu ko defee Kébé ndax xam na bu baax a baax li nga xam ni loolu la Abou Kébé capable li ko waral nag mooy moom dafa xam bu baax a baax kuy Abou ndax sëy na ak moom te ni mu doon dundee ak Virginie nu ko raw la dundee ak moom te tey jii ki nga xam ni moo di Virginie euh, ñàkk na bakkanam te moom muccagul ba tey ci ki nga xam ni moo di Abou Kébé ba tax daal buggu cee wax benn yoon mu mel ni kon Abou nekk na koo xam ni képp koo xam rek da nga koy ragal ndax sañ-sañ ak bandi bi nga xam ni doon na ko ak sañ bi nga xam ni sañ na ko ci doomu amul benn yërmaan demander si ñoom ñu jàll ci Charles Charles nag moom bëgg na récupérer Ndeye Marie euh, ba tax nag mu ñëw daal di koy expliquer lépp ngir rek nekkaat ak moom donte nag ki nga xam ni moo di Charles euh, nuru na koo xam ni ku sincère la ak moom ndax nuru na koo xam ni bëgg na ko euh, parce que demoon na ba bëgg a bàyyi uli ndax Ndeye Marie waaye nag Charles nekk na koo xam ni même bu juboowee ak Ndeye Marie tamit du yàgg parce que si yu nga xam ni ci la di jàppale bu nekk avocat wam di yeggaatee problème rek lay euh, juraat ñu jàll ci Bassirou Bassirou nag moom comme toujours rek moom comporté wu na comme euh, responsable waaye comme kilifa bu mat kilifa ci biir këram euh, ndax fexe na rek ba bëgg daal di dajale ami ak yaayam réconcilier leen ndax xam na ni moom bànneex bi muy am su ko ami di woowee papa boobu rek la bëgg ami itam di ko woowee yaayam ngir yaayam yëg bànneex boobu muy papa joo xam ni kon bokkul ak ñi nga xam ne dañuy xacc seen doom ci seen bopp moom dafa di ko wax te it nag di ko eh, jëfee eh, waaye ami nag moom mel na ni rek bëggagul baal yaayam ndax bëgg na lépp loo xam ni ay secret la ci seen diggante eh, lépp daal di leer su boobaa nag ñu mën a jàll ci leneen ñu jàll ci beneen séquence Mazim nag moom bëgg na rek daal di nekk ak Malika si jàmm ndax à chaque fois bi wax ak moom gis nañu ni il du te it nag day wax ak moom ci respect wax ak moom ci noo xam ni day tax rek Malika du mën a gis boppam loolu lépp nag da koy def rek ngir xam ni ki nga xam ni moo di Malika jabaram la euh, te yi nag euh, yaakaar naa jëkk rek jabar noonu rek lañ war di doxee waaye Malika moom fu mu toll rek day mer mel na ni moom xolam euh, moo munta neex parce que lépp loo xam ne Mazib mi ngi koy def ci moom terewul su Mazib wanee ginnaaw rek mu indiwaat kanamu bi nga xam ni mooy kanamu ku meer mel ni daf am lu nekk ci xolam lu koy rongé ñu jàll ci beneen séquence ki nga xam ni moo di Abu moom nag Abu bëgg na def lépp lu mu mën rek ngir daal di génn ci mbir mi moom ak ay avocat wam waaw loolu nag tax nañu bëgg a sacrifier ki nga xam ni moo di Mazib bëgg nag mu dugal alalam euh, ci foo xam ni euh, ki nga xam ni moo di Abu Rey mën a jot si alal boobu ngir faj ci ay soxlaam ndax Abu jamono ji amul dërëm euh, loolu nag nekk na loo xam ni fooguma mu yomb ndax ki nga xam ni moo di Mazib gis nañ ko mu dem ci orphelinat di joxe ay don te it nag gis nañu ni borom xol bu rafet la ndax képp ku am problème moom mooy ñëw taxawula la daal di la cay jàppale mu mel ni kon Abu li bëgg yaakaaruma rek mu daal di sotti ndax yàlla du seetaan koo xam ni euh, nitu yàlla la def lu baax ngir yàlla te yàlla rek tax euh, muy bàyyi keneen di joge fee ñëw di la euh, suuxal te ñoom abu li ñu bëgg nag buñ ko defee mooy daal di suuxal ki nga xam ni moo di Mazib ndax dañ bëgg mu dugal xaalisam foo xam ni rek da koy perte ñu jàll ci ami ami nag moom ndekee caractère bi mu am ak ni mu mel ni mu bañee góor ñi loolu yëpp nag ndeke la mu dundoon dans le passé moom moo ko waral loolu moo tax ami mënul def ak góor ñi góor gum gis rek ni moo nekkoon jëkkëru yaayam di badu dafa àggoon ci kawam euh, nekk loo xam ne nag da koo topp ba mu nekkee xale ba tey loolu nag tax na euh, mu daal di terrifié wu euh, daal di rek mel ni koo xam ne dafa ragal fu mu toll bay janeel ki nga xam ni moo di badu ba tax nag masif ñëw di ko épaulé fexe nag ba xam li nga xam ni moom moo ko métti si la ko ami expliqué lépp li nga xam ni moom la jot a dund muy loo xam ne lu metti la loo xam ni nag xale yu bari dund nañu ko te noonu la ñuy màggee ak moom te d'habitude day changé nag seen humeur day changé itam seen euh, comportement ñu jàll ci Badou Badou nag moom jamono ji nga xam ni moo ngi ci lalu sukuraat euh, lépp lu mu bëgg rek euh, mooy daal di jàkkaarloog ami ngir rek mu baal ko àq loolu nag réew na ni rëccu dina fekk jëf wees ndax ba ngay am sa doole tiim xale bu ndaw di ko def ak moom naka sudul noonu bis boobu xalaatul woon ni dee dina ñëw waaye tey bi nga xamee ni mi ngi ci lalu hôpital amatul benn kartan xam ni rek yàlla rek moom moo mën bëgg na nag daal ko àq ba pare ami nag mujjee naa nangu sax jàkkaar jàkkaarloo ak moom ndax ki nga xam ni moo di Mazib loolu la ko conseillé ngir rek mu am fit daal di jàkkaarloo ak moom euh, mu mel ni ak Badu ndax moom dafa ragal daf ko ragal ba nga xam ni jàpp na ni saa bu ko gisee rek la mu dundoon dina ko euh, dundaat ñu jeexal ak séquence bu mujj bi euh, Malika nag moom dafa ñëw di attaqué Ami tey teg ci nag di ko menacé ndax dafa toppoon ki nga xam ni moo di Mazib ba xam fépp fi mu jaar te Mazib bi mu génnee ba ni muy ñibbee këram Ami la nekkaloon loolu nag nekk loo xam ni sulliwaat na ak meram ba tax mu ñëw di attaqué ami waaye ku am kudd doo lakkale loolu la olof Njaay wax te nag Djibo nekk na koo xam ne ku mat yaay la te nag bii mooy deuxième fois nit ñëw di attaqué ami moom mu ñow rek euh, daal di koy euh, défendre lool nag nekk na loo xam ni mi ngi koy bëgg a rapproché ak ami ndax tey ree na ami ree ñu xoolante ñoom ñaar ku nekk daal di ree muy loo xam ni kon début la bu wane ni ñoom ñaar seen juboo soreetul kon bokk internet yi euh, fii la ñuy yem ci épisode vingt bi ñu jox leen di abonné ci 5 TV te bu leen fàtte ba si cloche de notification bi ndax ngeen di jot suñu vidéo yi ci saa si jërë ngeen jëf et à très bientôt incha allah